jafe-jafe sa wàllu am-am ci kàttanu yàlla ak turu bi ñu ko liggéeyee. su ma déggee wax ji mooy yow en tant que président écurie moo fa dem d'accord nga ci ñuy def làmb ji huis clos. mais loolu moom moo fi sës huis clos moom moo fi sës su dul loolu toog nañ neuf mois xaw ma dañuy toogaat beneen neuf mois wala dix mois parce que première vague bi bi mu ñëwee. dem nañ ba benn instant fin ba ñu ngi naan ay commencé affaire bi commencé di wàññeeku di kalaare di wàññeeku ndànk-ndànk xam nga di wàññeeku di wàññeeku ba gars yi amoon yaakaar ne day day jeex ñu commencé waat beneen beneen programme mu jékki-jékki affaire bi yokk kon léegi loolu benn benn leen rek laa fi gis moo ñu def fii ku la ba pare respecté protocole sanitaire bi en tout cas. maa ngi profité ci occasion bi di nuyu waa ARARS mooy kuréel gi ma bokk mooy président écrit yi ak école yi nekk ci Sénégal pare nañ pour accompagner CNG ci programme huis clos bi pare nañ pour accompagner promoteur pour ñu tëgg à huis clos pare nañ pour respecter tous les tout tout le règlement pour le wii clos pare nañ pour euh, avancer waat ci làmb ñun waa ARARS pare nañ pour loolu. léegi su ma ñëwee ci huis clos bi euh, maanaam yow ci sa xalaat ak ci sa gis-gis bu gàtt naka la ñuy defee huis clos bi dañuy def huis clos bi mbër yi dong ñëw ak tëggkat yi wala dañuy def huis clos bi euh, jël maanaam distance euh, mbër bu nekk mën naa andi 200 personnes wala mbër bu nekk mën naa andi 300 personnes ñu espacé ñu espacé leen maanaam naka nga ko gisee bu ñu doon def huis clos bi. non instant bi moom bu ñu doon def huis li ma gis moo ñu def ko huis clos bu strict boo xam ni. day nekk huis clos comme son nom l'indique parce que dem maa ngi déglu la monsieur le président du CNG maa ngi ko nuyu au passage monsieur mi ngi wax euh, huis clos bi nu mu war a doxee nee na benn tambour major moo fay nekk par exemple bu fekkente ne Eumeu Sène junior ak Kalmandour Eumeu Sène danaan yóbbu ay tëggkatam Kalmandour indi ay tëggkatam no Eumeu Sène du indi tëggkat Kalmandour du indi tëggkat tambour major muy famille Seck bi nga xam ñoom ñoo fa doon nekk ah parce que ñoom laa doon gis tout le temps ñoom ñoo doon ñëw chaque jour ñooñu la ñuy jël ñooñu xam nañ bàkk mbër yëpp waykat yi tamit mu ngi koy expliquer démb nee na de toute façon en temps normal deux waykat trois waykat mooy mooy nekk ci làmb maximum quatre kon loolu compliqué wul léegi nag euh, ñun amateur yi nañ am xel ñun supporters yi nañ am xel xam ni dem arène national jële fa feebar ah, bëgg a seetaan Eumeu Sène Junior wala nga seetaan euh, Modou Lo kooku erreur la nañu toog ci suñu kër yi gars yi defal ñu ay programme yu saf sap nga xam ne boo dana la permettre doo génn dem di dajaloo kenn doo maanaam li ñu toog leen seen kër kooku moom bu làmb tëjee dañuy day gën a dañuy gën a arrangé ñun amateurs yi ñu ngi ak suñuy groupe whatsapp ñu ngi suñuy ñu ngi ak suñuy téléphone mën nañ di déggante xam nga nañu toog suñu ay kër taal suñu tele bu dee dañu def PPV ñu jënd suñu code bu fekkente ni am na télé yu ko jënd ñu toog jàkkaarloog suñu télé teg suñu ataaye ah dund làmb ji en temps réel man de ñun de pare nañ ñun waa aral si pare nañ pour ñu def ko huis kilo strict boo xam ne kenn du ñëw mbër mi ak ñu muy àndal tous la xam nga ak organisateurs yi loolu ñun pare nañ pour loolu te man loolu laa gis parce que lii nag sam waay comme ñu ngi naan ay mm, kaay mi ngi yokk nag wax dëgg yàlla ñun ñoo ñun en tant que sénégalais première vague bi on s'est bien comporté am nañu chance affaire bi avancé wul fii ci ci Sénégal kon nag il faut. bu demee ba yenn euh, organisation mondial lu mel ni OMS dem ba dañu bàyyi xel parce que suñu ay cas bëriwu fi Sénégal ay mort bëriwu fi Sénégal dañuy ñaan yàlla mu continuer foofu ñu toog suñuy kër toog seetaan lamb yi c'est fort possible c'est bien possible ñun ci loolu la ñu ànd huis clos boo xam ni bu ne président écrit bu mu dem sax man duma dem fii laay toog te jàkkaarloog suma télé samay plan wóolu naa leen gëm naa leen te préparé naa leen mbër mu ragal nag huis clos du la arrangé mbër moo xam ne ay supporter ñoo doon yokk fit huis clos du la arrangé mais huis clos bi jàppal ni làmb mën na fa jaaree sangu yenn mauvaise habitude yëpp ñu bàyyi ko ci làmb parce que huis clos bu amee dootoo dégg ku ne jox naa diw ay billets dootoo dégg ñu naan la ay problème manager beeg lii ak laa ak laa huis bu amee dañuy assainir làmb ji teg ko dans les rails mu mel ni comme football mel ni comme basket mel ni comme boxe parce que tey jii Champions League boo ko doon seetaan. am huis clos la final coupe d'Afrique sax bu tombé woon jamono yi même final coupe du monde sax bu tombé woon ak jamono yi huis clos lay doon yeneen sport yëpp nag ñu ngi def huis clos di dund seen sport kon pourquoi pas lamb def huis clos man pour man dañ ko war a def huis clos du ñu respecté huis clos bi def ay comportement yu exemplaire ba nga xam ni bu affaire bi gënee tane gën a gën a gën a avancé maanaam euh, affaire bi gën a wàññeeku affaire bi pandémie bi gën a wàññeeku su boobaa den am fitu commencé ñu may par mille personnes par deux mille personnes à l'arène nationale.